mais dama leen di wax ni leen li tax nit ñi bàyyi seeni yitte ñëw Abdou li wax léegi mu waroon a am un engagement bi nga xamante ni ndigal la mu bàyyi ko teew gis nga booy bu ngeen fi nekkoon des jeunes événementiels gars yi du ñëw de jeune événementiel ci politique démb ak tey waxuma nag jeunes yi ñoo nekk démb ak tey jeune événement ak femme événement dañuy tàkk rek dañuy saxaar rek mais duñu tàkk maanaam dañuy nekk ay dañuy nekk ay ginaar ginaar du xiif mukk du suur mukk du dee ci mukk waaye du ñàkk mukk parce que day fefaat ngeen nangoo nekk ay jeunes yi nga xamante ni man xaw ma woon seen initiative c'est-à-dire man bu fekkonte ni dama toog jox leen xel bi à la limite bu leen ko mëggee yi joxoon à la limite bu leen ko mbaw joxoon keneen tuuti mais da ngeen ne ñëw am yéene am xalaat xam ni dafa am lu jot ngeen tënk ko ci xam-xam woo maa ngi soog ñi nañ ci waxtaan kon bu honorable bàyyee loolu ñëw ginnaaw cër bi mu am yéene bi mu am sax tax na dañ ko war te dafa war moo tax bi ñuy wax ma ni leen jox leen ko parce que comme man ci panéliste yi laa il faut moom mu jël kàddu fekk na mu méngoog seen yéene ci xam bu ñu xam dayoo ak daraja bi nga xamante ni am moo am nga ko pour l'alliance pour la république léegi nag wax naa ko sant ay wax du jeex ay wax dafay sës fi ñu toll nii ñun ñi bokk ci mouvance présidentielle bi dañoo nekk ci li wax bul ma ba ma xëti maanaam boo ñëwee ba ci koy avancé di avancé ba ci booru dex dootoo waxu avancé waxu ku lay ba ma xëpp la ba ma xul nga di wax parce que li fi nekk rek mooy toog waxante dëgg jàngat li xew xam mbir mi lan la xam li am lan moo ko waral xam lan moo tax ñiy jóge 7 pour cent ba 41 pour cent tey ñu ànd ak ñi nga xamante ni le parti réew mi tey bi ñu ànd ak moom au moins ñi ngi doon wax naan dinañu am quatre vingt cent wala soixante quinze pour cent ñi ma ngay booy wax léegi dëgg la un plus un jox ñu moins vingt parce que on n'est pas à trente pour cent élection locale yi ñëw indi lu historique ñi yaakaaroon ni bu ñu àndee dañuy gagné ñu ànd perte ba tey mairie Thiès yi gone yi ko ŋànk mooy les plus jeunes maire de l'histoire politique de Thiès amul kenn ci ñoom ki nga xamante ni xamoon nañ la ci wàllu politique xam-xam bu wér wala nga am jaar-jaar ndare yéene nañ leen ko dina leen jàppale parce que loolu laa gëm ñoom ñooy maire yi dana leen jàppale ci li ñu mën parce que bu ñu amee ndam Thiès moo am ndam mais il y problème locales yi boo xoolee coalition Thiès Est Benno Bokk Yaakaar ma nga fa am 692 voix am ci ville bi boo ko totalisé damay jël nga totalisé ko ñu am 15 947 voix. non Thiès ville laa wax non non dama ok damay ñëwaat dama bàyyi Thiès est bi pour mu bañ a gudd Thiès ouest damay ñëw juste ci quota ville yi nga ñëw boo boolee liste dissidente yi maanaam ñi nga xamante ni ci ñun la ñu nekkoon te farfële boo ko jëlee mu jox la trente deux mille deux cent cinquante cinq trente mille deux cent cinquante cinq voix yeewi askan wi. ci Thiès yëpp mu am dix huit mille deux cent trois cent vingt sept voix maanaam ñi nga xamante ni dañoo bokk ci ñun ñëpp ku ñu àndoon suñu score dana ëpp ñoom lañu ñu am mais dinaa ci dellu si waat ñu am kon ñun ak ñoom ñu am différence su onze mille neuf cent vingt huit voix mais damay dellu rek ci un plus un waroon a joxe deux un plus un joxe moins vingt il y problème. loolu kenn mu ci génn élection locale jàngato nga ni non c'est pas grave ñu jóge ci élection législative ñu ne non nañu àndaat ni ñu àndoon jël mbir mi joxe ko ñu tabb ñi ñuy tabb ñu demati ci élection législative yi élection législative yi boo ko jëlee sur l'ensemble du département Benno Bokk Yaakaar am 69 270 voix coalition Yewwi Askan Wi am 83 900 voix rawee ñu 14 680 voix ba tey jiitu am na raw am na mais lan moo xew man nag wax ji ci ñaari nit laa koy teg parce nag dañoo am ku ñu jiite mu tudd président de la république moo ñu yilif ñun ñëpp loolu ñun ñëpp ko bokk sénégalais yëpp mu ñëw nekk citoyen sénégalais loolu moo ko moomal boppam mais mu ñëw nag ñun nekk suñu camarade président de coalition muy le président Macky Sall. ñuy nangu yilif gum ñu liif ñuy nangu jiite gum ñu jiite ñuy nangu daraja guñ ko darajaal ñuy nangu ni ko moom li mu wax la moi je parle pas de plan A ou de plan B mais dama wax ni toutes ces orientations dinañ ko topp dinañ ko sàmm mais il y a problème li am Thiès ay la yëwén ñaar ñi dama jàpp ni on ne peut pas les désigner comme des coupables mais ils ont la responsabilité muy notre camarade président Macky Sall et notre frère de coalition Idrissa Seck je vais l'expliquer de manière très simple ñoom ñaar dañoo waxtaan 15 mois ñoom loolu la ñu wax nee nañ waxtaan nañu 15 mois seen biir ñun waxtaan nañu 15 minutes ñu ne tey ngeen ànd. tey ngeen gañe tey ngeen am ndam tey ngeen faru loolu mën naa xew fépp ba mu des Kajoor Kajoor gii li fi am mooy nit mën ngaa lekk bàyyi ko nit mën na laa ñaan nga bañ nit mën ngaa yor sa oto di damay tukki mun la yóbbaale ma nga ne ko duma ànd ak yow mais li ngeen bokk foo ko nasee boole ko ca xamal ni yow génn ci la nga doon wax dama lay xamal leen tableau bi ni am ñu koy defe noonu mooy ñun ci politique Macky Sall muy suñu kilifa Macky Sall muy suñu wasila bu ñu waxee dañuy def mais dama jàpp ni ñun dañ fi nekkoon fii ci dëkk bi Abdou Mbow mi tuuti ñu ray benn élection li may wax xam na ko moom suñu kër yi daj nañu lu ne te loolu yëpp li ko naroon mooy xeex ak Idrissa Seck parce que dañ ne ko ñun ànduñu ak yow te comme contre nga Macky Sall lu ñu mën a def ba nga ñàkk Thiès dañ koy def. président bi dama la seet si parce que bu ñu doon wax Netto Bantam yow laay àndal ndax yaa soo mbokk mais dama la seet si surtout parce que dama gëm ni tey bu ma dara daloo. boo ñëwee teew dañ naan la massa te politique jaru ko bi may ñëw nag tàgguwuma Macky Sall ndax moomul ma ba ma koy tàggu ci yenn yi mais man ak yow lépp ñu fi wax dinaa ko ko nettali ndax man du ma wax ak kenn kuy politique dara ci Sénégal lu may nëbb Macky Sall sama ngor mayuma ko ñu waxtaan longuement bi ñu waxtaanee ba pare li ma ci jàpp mooy ñaar ñii dara jotalewu leen donc ci seen ànd moment boobu am na lu ma jural mais li tax ma defoon ko dama ko defoon parce que dama ko sentiroon donc bu ñu demee nag ba seen ànd ci politique jural ñu li nga xamante ni gënul wala neexuñu wala safaan la man sañ naa war naa mën a am liberté taxaw wax ko foofu laay ñëwee ci Idriss Seck en tant que responsable de la coalition ici au niveau de Thiès. ma jàpp ni moom it ñi mu àndal dañu ànd ak ñoom pendant seize ans lu ne ñu daj ko lu ne ñu proposé leen ko lu ne ñu war leen ko mu dañ leen di dañuy taxaw naan ñun jaasi mënu ñoo dàq alal mënu ñoo jënd taxaw di rayante seize ans nga toog ba ci yàgg def benn virage te jëloo le temps nécessaire man certitude laa am xamatuma léegi nan la demee mais dama jàpp ni Idriss Seck le jour où bi mu àndeek ma Macky Sall dès le lendemain bu ko ci yàlla mayoon jàppal mu ñëw taxaw wax ak waa Thiès